dama ñu dégg loo xamee ñu ngi koy yëglu mu ngi daw daam ci dëkk bi am nañu njàqare lool bay jëlaale tey jii ko ko seede muy waa réew mi ak bitim réew ak ku may dégg ci àddina bi ñu dégg collectif boo xamee ne HLM da koo jaay ay suuf su mu moomul collectif war a dem laaj HLM ay këyit collectif boobu nee ne bàyyi na këyit di muy laaj ndax si ñun la ko jëmee ñun lébu yi ak alal lébu yi ne dañ koy jël ke jaral na leen lu nekk ñu dégg seen kàddu ñu ne dañ ciy guerre ndokk bi ngeen bëggee guerre di ngeen ko am waaye comme jàmm ngeen nekkoon am jàmm comme guerre ga ñun dakkoon nañ ci geer bi ñu wax ne suñu suufi Tëngéej suufi Cap Vert suufi Lébu yi joxuñu ko buur mayuñu ko buur te kenn du ko jël kebe kenn du wat lu mu jaral nit ku nekk lu mu la jaral la ñuy jaral tooñ ñu nag passé jël suñu alal gisuloo fenn foo dem buur ne la alal jaa ngi ni gisoo fenn foo dem famille ne la baa ngi nii ay nit nek ci jaba jàmbe jo xamee defal nañ seen keel bay jël alal état diko fayé ko ci kaw soufi jàmbur borom alal jo jotul soufam jotul alalam nit ko xam ci keet këyit sa xamuñu foko defare ñom ñoom Tayru sar ak ñamu àndal di jaba jonge ñu ne déet wa collectif HLM di nga xam di dañ leen jaayeen ay souf ci kermassa ñëw taxaw ci soufi 1451 bu famille ba bagur jaagne demuñu HLM jox leen ay keet ak nu mu leen ko joxe ñu ne léegi famille bi la ñuy joxoñ loxo mu jaral leen ñu war a deewoo ak lébu yi fu ñu toll joxoñ boobu ñuy joxoñ nag tënk boobu d'accord nañ ci. comme dëkk bi am na buur te amul buur ku mu nee nga war lu la neex lu ñu waaye oo ñu uyu ci lu mu la jaral jaral nañu ko.